ngeen jamonoy léegi jii dafa am yu bare bare ba yu ci xew mooy léegi dangay gis góor day ñëw ci jigéen fen ko fen rëy rëy ba ku jigéen ka am ci moom bëggeel ndax ca jamono bi nga koy fen du xam ne danga koy fen mu bëgg la lool ba tàggoog sagoom ay bokkam di ko tere mu lànk too bàyyi ay xaritam di ko tere mu lànk too bàyyi ba mu egg ci sax bàyyi ay bokkam bàyyi ay xaritam ngir lan ngir mbëggeel gum am ci yow ndax gañ xelam ndax jigéen bul fàtte ni wolof day faral di wax ne ni weenu sëggi ni la xel mi sëggi te jigéen dama lay xamal lu tuuti te bariwul maanaam dafa bari yu nekk ci moom yoo xam si ni saa yu ji saa yu ci góor duggee rek gañ confiance am loolu nag góor gu ci bàyyiwul di ànd ak jigéen te ànd bi yëpp ay war nga lal sa diggante ak moom yàgg-yàgg muy suba baabu yi bëccëg da nga xëy bis am bëccëg goo xam da nga ko wéete ndax suñ borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne danaa jubal pexe mu ne ba mu des pexem aji war rawatina nag war jigéen war moom wolof nee na nit ku ko def reen ba déwén ñu ku ko def ren ba déwén mu jig la dañ la koo jiiñ waaye du yow waaye man loolu dama ko weddi ndax man gis naa nit ñoo xam si ay war def nañ ko nit mu dema dema dem ba lu toll ci man ñetti at wala ñeenti at te gisaguñ ko waaye yàgg-yàgg dana ko gis ndax xam nga lu war a loolu américain bi dafa baat bu mu faral di wax te dama ko gëm muy what goes around is come around nee jëf ji waay mën di jëf jëf ji lu mu rafet rafet rafet bés dina ñëw mu ñëw ci sa kanam waaye jëf ji lu mu ñaaw ñaaw it kazalika naka noonu da nga xëy gis ko loolu nag da ngay ñëwaat ci alxuraan mooy kama tudil tudaanu yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala ni nga ko rek na la lay fayee wolof naan lu waaye rek sa loxo lay nàcc te damay faral di benn baat nàcc nàcc nopp borom deret ji cay tuuroo balaa daal ci mbaggum kenn ci sa mbagg lay jëkka dal gaañi adduna bi dafa jeex ba pare te gis nga Serigne Saliou Mbacke daa am wax bu mu daan faral di wax te loolu ku nekk war cee bàyyi xel poñiti àddina yi bu la jaral mukk ngay dugg ci lu war a dugg mbaa nga di ko def ndax dañu woon doomu aadama ju nekk yàlla taxale la mu ne biiru jëmmam ji ak biir bàmmeelam la la taxale la lu mu ciy def daane sa biir bàmmeel nay si yitte ndax loo ci deful doo ko fekk teg ci daane adduna si itam ma ngay dem dëdduna te doo mënu koo jot daane nan daw jëm ci yàlla te suñ borom moom loo daw gën ko loo daw jëm ci moom mu moom mu daw jëm si ci sa jëmm ji ko ëpp te yàlla du koy xaare da lay gàttandu sëriñ Saliou Mbacke ko waxoon muy lu mat a bàyyi xel ay wor daal day lu ñaaw te wor mi ngi tàmbalee ci ngay fen nit fen ko ba mu gëm say fen nga ànd ak moom ci biir loolu te yow mu leeral yàlla li nga koy joxoon ñëpp bu demee ba ci biir ay nax képp la cay fekk sans xool ko ci sa bopp loo ko defan du la neex baa ngi xool ko ci sa jigéen ku ko defan sa rakk du la neex moo tax jigéen àndal ak moom sutura ak yor ko te jëmm yàlla rek a tax te loo koy diglu nekk bu dee loo mën mënut it na la leer la yàlla ne da nga ko ci def sa kéem lay kartaan ba bu sottiwul mu xam ne jim nga la nga man waaye yàlla dogalul nii la ñuy ànd ak jigéen waaye ànd ak jigéen ci war ak i nax ak saa yoo ko jekkoo duma loo jekku ci alalam jël di ko nax naxeen yoo xam seen lépp leer na leen defoo ko ngir leen dul ngir bëgg ko jëriñoo te lan loo ko mën a jëriñ ay gars yi bàyyi leen loolu góor day ànd ak jigéen ci yërmande lu mu yor nga bàyyee ko ko te loo yor bokk ak moom ndax jigéen ñooñu lañ ko yore asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu